Tyson 2 Franc Mama Lamine Garga 2 waaw yaa ngi laan na combat amateur yi muy le 19 juin boobu nga wax di combat boo xamante ni amateur yëpp a koy waajal Babacar di ci félicité Seck bi nga xamante ni mooy le grand promoteur ak waa Equivox yëpp waaw di wax ne amateur yëpp ñu ngi koy xaar ndax dafa bokk ci bis yi di xaar muy rendez-vous Babacar lamb lii la soxla muy promoteur yi di liggéey ci événement yu mag yi di liggéey ci mbaru amateur ndax combat boobu lépp loola ci waaye mën ci wax mooy 3 heures ku ñëwul doo am place ndax boole ay mbaru amateur xam nga ni Mama Lamine fu mu jógee waa Lan Sarr dar ko Garga 2 génn waa Parcelles dar ko nga gis Franc xool Tyson 2 xool combat yi ndaw yi nga ko bootale combat yëpp nekk ay combat amateur mais Fourrière Baye ma di ñor nga xamante ni combat la boo xamante ni kenn xamul foo koy waxee dafa nekk ay combat yoo xamante ñun amateurs yi dañ ci kontaan vraiment di sant Seck di ko ziar di wax ni sponsors yi nañu teg loxo promoteurs yi bees yi doog a ñëw ba ko tey ko xool journée bii nii cam production def laaj na mu am accompagnant mooy sponsor loolu aussi ñu ngi koy wax ki nga xamante ni mooy Seck ndax investir na ay millions te bu ko neexoon dem def ko feneen kon nañu jël jàppale promoteurs yi doog a ñëw teg leen loxo jàppale leen ci sponsor combat yi mag yi di taxaw nii dëgg la mais nañu bàyyi xel aussi ne lamb dafa am booy yu nekk ci suuf yi yéeg te booy yooyu pour ñu yéeg il faut promoteurs yi may leen loxo sponsors yi aussi gunge leen mais di remercier waa jeune amateur ci tey seen teewaay ànd nañu ak yar sañse nañu ñëw nañ ci lamb ji vraiment ànd ak discipline di wax ni lamb lii la soxla image bi rafet nañuy boole combat amateur yi. bëgg naa la Mama Lamine Garga 2. waaw Mama Lamine Garga 2 Babacar ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaare di la wax ne combat boobu Sénégal gépp a ngi koy xaar ndax dafa nekk combat boo xam ne ku nekk dafa am koo génne ndax ku ne xam ne ne Mama Lamine euh, depuis 200 gi 300 daanut te ay ténor rek la daan kon bu ngeen boolee Mama Lamine ak Garga ak ak Garga 2 loolu combat boo xam ne amateur yëpp a koy xaar waaye di féliciter Baba Diaw ci bés bi comme li président wax rek. ndax ku ne xam na ne bés bi ni mu toll loo xam ne ay at la ci jeune amateur liggéey ànd ko Thiam Production ndax bu leen faree ne Thiam Production ci ba ci jeune amateur la génne ñu liggéey ci liggéey ba am solo kon tey bu bés bi melee nii dañ ciy sant yàlla bu baax baax di ko ñaanal beneen bés yi ñëw gën a neex mais ñu ngi xaar seen journée yi ndax journée yu am solo la mais nañ jàppale Thiam Production ndax gis ngeen ne tey gis ngeen fii ni mel war nañoo am ay ay ay ñoo xam ne dañ ñuy jàppale ci bés bi waaw jaajëf Babacar. Mama Lamine Garga 2. ah lamb ñu neex lamb amateur lamb amateur yi dañ siy gis seen bopp amateur yi dañ siy gis seen bopp combat boobu billaahi trop macha allah lamb amateur la ndax Garga nee na ko maa mën ah, bee nee mu mënoo moo Mama Lamine lamb la daal waaw. Mama Garga. Mama Lamine Garga de combat amateur la combat bu ñu xaar la. waaw nee na ñun Garga de moo suñu bër moom la ñu ñaanal quoi waaw ñu koy xaar nag retour am quoi. maa ngi lay bëggee. sama waa ji maa ngi lay fay. Tyson 2 Franc. ah. Tyson 2 Franc 19 juin samedi. ah tudd nga lamb amateur dëgg dëgg dëgg dëgg. kooku lu ñu jaayee bee bi ñu jënd ko. lu ñun amateur yi lamb rek lañ bëgg. te xam na ne lii gars dañ koo namoon. digga bi junni lañ ñu ko jaay mais jar na ñaari junni. te maama Lamine day bëre bés boobu ak ak Garga 2. naa la amateur yi pare nañ lu ñu jaayee bee bi ñu jënd ko. ndax ñun lamb rek la ñuy wër waaw. mais combat boobu lu koy jeexal Tyson 2 Franc. nekk nit ñi tey quoi waaw ndax euh, euh, Tyson 2 dafa nekk benn mbër boo xam ne dafa na si ci wàllu làmb ndax bëre bi géej la quoi Franc nag xale la buy jóg def ci moom attention tamit waaye Tyson 2 daal kenn mënut a natt bëreem kenn mun a natt bëri Tyson 2 moo tax dañu amateur ñun daal amateur daal la ñuy taxawee daal. Maama Lamine tey Garga 2. Maama Lamine Garga 2 waaw di ñaanal Maama Lamine ndam rek lu gën a jege gën a yaay jaama laa dëkk. ñu ñaanal Mama Lamine yàlla may ko ndam sedd guy barke Seydina Muhammad ga gaaw wala ay tarkindaa la lamb ji day gaaw day gaaw lu leer laa lay garga garga de bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko li man maa la ko wax denc Tyson 2 Franc le 19 juin waaw waaw combat bu neex la Tyson 2 Franc combat bu neex la Franc na xel Tyson 2 mag la mun a ci làmb te bi daa mandi waaw Mama Lamine garga de Euh, bu doon may Mama Lamine su ma ñëwee dinaa xaar tuuti quoi parce que Garga booy xool ñi ko daan ñëpp dañoo bëre ba daan ko du cuune ci làmb dañoo bëre ba daan ko voilà mais làmb ju neex la que le maire gagne. Mama Lamine Garga 2 Tyson 2 Franc le 19 loo siy wax noo ko gis en tant qu'amateur. combat bu neex combat yi neex combat yi neex làmb Babacar làmb ren day dundaat bu baax a baax day dundaat bu baax waaw dañuy gis lu garaaw Garga 2 Mama Lamine combat deux francs kooku sox Gamou Gueye grand combat la mais tey su ma lay laaj ci le 19 juin Mama Lamine Garga 2 Tyson 2 francs loo may wax ci bés boobu en tant que nitu làmb non boobu moom li ma waxoon rek laay wax combat boobu bis boobu journée bu ko dàq ci làmb yombul ndax ñeenti mbër yooyu yëpp ay mbëru qualité lañu te ku ñëw di nga gis bëre di nga gis xeex te ay mbër lañ yoo xam ne vraiment ay ndaanaan lañ ñuy ñaan yàlla rek vraiment yàlla nañu yàlla yóbbu ci le 19 ñu ñëw fekke si combat bu am solo yooyu nga xam ni taxawal ngeen ko te ñu leen ci ñaanal ndam nag ak succès bu baax a baax incha allah. Aziz tamit gis nañ ngay jàppale waa làmb bu baax a ah. man làmb daf lu nekk ba tax na tey c'est normal ma ñëw delloo làmb njukkal rek ndax làmb participé na lu bari ci suñu dund loolu moo tax ñu ñëwaat di delloo njukkal làmb xam naa dinañ gën a yaatal combat yi dafa nekk avancé ko bëgg. rek. ci kàttan suñu borom. ñu passé nga xam ne parcelle la dëgg day yàlla yàlla bu ñu may dam yàlla yàlla de Franc jël bu dee incha allahu rabi waaw Franc lay ñaan yàlla ko yàlla may si kàttan suñu borom rek incha allahu rabi. Mama Lamine. Garga di ñaanal yàlla Garga 2 rek sama mag ju baax la Garga 2 yàlla na ko yàlla may ndam ci combat bi ko si yàlla may. loo koy moytuloo Garga 2. lu ma koy moytuloo. dëgg de wuru am lu mu mën ci lamb instant yi pour man moom Mama Lamine waaw ñu ñaanal bu nu parcelle yëpp yàlla may leen ndam ñoom Franc ñëpp képp ku am combat yàlla na yàlla may ndam parcelle. Tyson 2 Franc. waa di ñaanal di ñaanal Franc mu daan jël bu rek xam ni Franc mooy sunu mbër te moom la ñuy àndal moom la ñu bokkal moo garga doo daal ñoo ngi ñaanal yàlla yàlla may leen ndam lu sedd sedd wëcc waaw bu yaa nag. loo fi gis na xamal ne waa kër Garga 2 la ak waa kër Franc daañu ko di ba fee dell ndax waa unité 9 ñu ngi koy préparé bu baax a baax waa unité 3 parcelle 1 26 daal ñu ngi koy préparé. Tyson 2 Franc. Tyson 2 moo war a Franc ko war a mën nag de normalement euh, Franc lay jox favori bu may jox favori waaw lu tax. Euh, Tyson 2 moo dàq bëre mais Franc moo ëpp doole moo ëpp doole. te moo gën a nekk ci yoonu làmb waaw. Papa Lam Sène. Papa Lam Sène benn. waaw ah bi may dégg. Papa Lam Sène tey da ngaa seetaan si lamb si. waaw dama ànd ak sama grand Pape Kase ak sama rakk Ndiol ñun waa Difoncé ñoo fi saaj bi yëpp waa Difoncé lañ mais man dama fi ñëwee ñaari fànn muy Medina laa dëkk di amateuru lamb ak représenté fi waa Difoncé ñun ñëpp waaw. Garga 2 ak Mama Lamine. Garga 2 ak Mama Lamine. non Mama Lamine laa jox favori quoi. lu xam Mama Lamine. dama xam bu baax a baax. waaw. combat mën naa gaaw. ci bëre jeexe waaw. waaw. Papa yaa wax lii. maa wax lii. am na solo. Garga 2 Mama Lamine. non Mama maa ngi ci Mama Lamine. la wax rek. boo ko jàppee laa mujj waaw alors dafa nekk ci yoon. te Garga 2 mënu ko téye. loolu boo ko Garga 2 jàppee daan ko. ale moom retour du benn sax bu daal di daal lan laa la wax. ale moo ko mën fuuf moo ko doole quoi noonu la demee. Tyson 2 Franc. Tyson 2. lu tax. Tyson 2. lu tax Tyson 2. non moom laa faral moo ko daa ko bëri. Tyson 2 moo dàq moo dàq bëre kay. kon combat bi mën naa gaaw. non non dinañ la wotoo tuuti nag dégloon de mais buñ songee Franc ñàkk na waaw. maa su loo moo ko man téeméeri junni barke Serigne Saliou moo ko man fuuf moo ko ëpp doole moo ko dàq bëre moo ëpp gàllaaj moo ko man ñaari yoon. Tyson 2 ko mun fuuf. Mama Lamine Garga 2 doo koy daan lu ma yor ci àddina ñi naa ko cee parce que alhamdulilah Tyson 2 moo dàq bëre Tyson 2 moo dàq bëre Franc moo moo moo ko ëpp ngeen moo ko ëpp nit. lamb yi ngeen ko sax barke alxuraanu karim lamb wallaahi asim Franc man ñaari yoon Mama Lamine Garga 2 moo waxu man Mama Lamine day bëre Garga 2 te xam ko na laaj ñu waxoo ko Garga 2 moo ko man fuuf mbiri parcelles yi ku ñu bëre ñoo man. vraiment ambiance li may lancé mooy euh, mbëri mbë combat mbëri ndaw yi na ci gars yi gën a taxaw parce que boo xoolee toujours si ngay dundee làmb dëgg boo xoolee tey làmb ji neex na amul benn violence amul benn problème mais dama gis ne mbër yu mag yi rek la ñu gën a favoriser te pourtant fii lii mooy làmb yu gën a neex boo xoolee bi abi sifle ba léegi combat fi jaay yëpp dafa neex ba pare may lancé appel sponsor yi tey combat tey bi boo xoolee sponsor da cee feeñ carrément boo xoolee mbëri tous dañ lu neex mais mënoo mbër bu ànd ak kii ak ku ànd ak kii bi nice waaw day desee nice parce que solu ñu blouson solu ñu dara waaw sponsor dañ jàppale promoteur yu ndaw yi parce que li mooy combat yi li mooy combat yi foo jëlee yii verre ma xool jox ma ma takk xulle xale bu jigéen bi may na may verre waay voilà waaye lii daal rëy de xulle yi rafet na est-ce que nice na non garaawul. maa ngi lay ziar. ça va delloo ziar. Garga 2 Mama Lamine. man soq moo ma fi indi. soq la fi indi. naa tey mais dinaa la laaj xanaa ci Garga 2 ak Mama Lamine. ñoom ñaar ñëpp ay mbër lañ. waaw que le noo tudd. jatu soq laa tudd ginnaaw raay laa dëkk. jatu soq. jatu soqo. jatu soqo. waaw ginnaaw raay ñëpp ma xam. yow kay ginnaaw raay nga dëkk yow. waaw. jattu soxo bu ginnaaw. waa dëgg du neex. bu soq bu soq. bu soq. soq na damaa bëgg yàlla may ko ndam ci barki yàlla ak yonent bi. bu gay lay bëreel de copain bëgg na. waaw lébu bi Garga de Mama Lamine. waaw Garga de Mama Lamine lamb la mais Mama Lamine Garga de am na combat daal. mbay di foncé. Eh, sama xarit bi Babacar. mbay doomu ndeyu Balla Gaye de. ragaluma loolu de ci boole Sadio Mané. Sadio Mané. ah gis nga. international dama koy xulool quoi ci mbedd mi. da ngay xulool Sadio. waaw di ko xulool chaque jour. nga yaa ngi fi dama recevoir. mais Garga 2 Mama Lamine. waaw combat moom ñoom ñaar ñëpp ay champion lan waaw mais maa ngi ñaanal Mama Lamine yàlla may ko ndam quoi parce que suma xarit la. tax loola booleeg. waaw dafa may ma defal. néewul dama bañ Garga 2. Garga 2 tamit champion la waaye Mama Lamine xam nga rek dafa am lu mu dund moom teewul tamit Garga 2 suma waay la moom tamit mais ñu ngi yàlla may jàmm. copain maa ngi lay. yaa ngi fay ça va. Tyson 2 francs. déggu ma. Tyson 2 ko gën a mbapat. waaw kii. franc day gagné. franc mbapat na mais bëri bëri bi di euh, kii Tyson 2 di bëri. franc mënu ko mënu ko jël kii waaw. kon daal la 19 dina neex. la 19 dina neex. torop loolu kay kenn waxu ko Tyson 2 franc. loolu kay mooy ndaxam géej gi am na ndox. te seen mbir mooy daan incha allah. waxuma da ngay duma daan ko. incha allah Franc ñëw ngay ku. Franc ñëw ngay ku. te eh, seen deux da koy daan de incha allah. très simple la moom. Franc très simple la moom. Tyson 2 moo ko gën a lamb arène. bokkuñu sax bokkuñu quoi. Franc Franc ñëw ngay ku. kay da koy dóor da koy dóor daan ko.